décision bi muy am après si sifflet la arbitre dañ ni sifflet di boole sifflet moo leen tàqale te arbitre bi bi action bi am sifflet na ba combat amatu fa kon donc bu fekkee Santang dafa gaañu normalement tey waruñu jox victoire King Kong si yoonu làmb règlement parce que bu fekkoon ne si biir action lañ amee mu amee fa su boobaa dañuy joxe dañuy joxe dañuy joxe verdict mais bi action bi am arbitre sifflet na ba pare kon combat amatu fa woon ñun nag dinañ def li nga xam